fanweeru simili bootu ci juróom-ñaari waxtu mbokk yeeg xarit yi ñu seetaan bisimila ci xabaar yi bokk na ci li ci gën a fës hôpital Aristide la Dantec jafe-jafe yi di gën a wéy gannaaw toxal gi rawatina ci aji tawat gi ñenn ci ñoom amuñu benn xabaar gu ñeel toxu barab bi tey jii am na si ñu bàyyeekoo ci yeneen i région indi seeni malaat waaye ba ñu yegsee dañoo fekk hôpital ba ne ràpp tëj ay buntam lu ni mel ñu di ko naqarlu gannaaw falug ndaw ñi ca penc ma te ñu tabb ko moom Pape Djibril Fall di gën a dëggal bokkam ci kujjeeg politique gi moom tête de liste bu coalition les serviteurs MPR ne mbiru hôpital la daan teg ak toxal gi ñetti hectares yi ñu war a jox ay doxandeem ne na loolee tey na xel te faw ñu indi ci ay leeral ba askanu Sénégal xam nu mu demee. kawteef ci université Assane Seck bu Ziguinchor ab takk der maanaam ab soldaar su civilu la ñu fekk mu doon jaay yamba ca biir daara ju kawe jooje lu ni mel kilifa ya ca daara ja rawatina waa SAES di ko naqarlu ba fa mu mën a yem ñu ne nag loole il faut que ñu jóg ci ay mbir coupe du monde Qatar 2022 seetlu gi jamono ji ci yenn joueur ci Sénégal mooy bëri na ci ñoo xamante ne jamono ji duñu futbal football ak seeni club lu ni mel mën a indil ay rëq-rëq gaynde yi ci compétition yooyee ñu dëgmal Salif Diallo ne li ko waral du lenn lu dul footballeur yooyu ñenn ñi ay mag lañ ñeneen ñi itam wonewuñ lu tax ñu du leen dugal ci terrain jamono ji mbokk yi ponk yaa ngi noonu bu ngeen taaxirloo ñu dikk ak yéen ci yaatal gi asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi ñu seetaan dal leen ak jàmm ci ëttu xibaar yi gannaaw toxalub hôpital Aristide la dante jafe-jafe yi ñu ngay wéy rawatina ci aji tawat yi ndaxte ñenn ci ñoom amuñu benn xabaar ne hôpital ba tëj nañ ko jamono ji ba tax na am na si ñoo xam ne dañoo bàyyeekoo ci yeneen région lu ci mel ne Njaareem ñëw sax tey indi seen i aji tawat wante ba ñu yegsee dañoo fekk hôpital ba ni ràpp ay buntam lu ni mel ñu di ko naqarlu bu baax a baax Fatou Bintou Konté daje nag kenn ci ñoom ñu teewlu reportage. village bi. ci fajar la jóge fee nga xam ne moom moo di Diourbel ga mu dëkk ngir ñëw ab benn visit boo xam ne fii ci hôpital Aristide Le Dantec Mbacke Gueye dafa ñëwoon nag gunge si ki nga xam ne moom moo di soxnaam feebaroon te amoon rendez-vous ñetti weer. sama jabar la ñu nga jógee ba Njaaréem ñëwoon fii ci hôpital bi fekk mu mu toj fi nga xam ne ñuy def ça fait trois mois yoo xam tey tey la bi bi la waroon na ñëw quoi bi ñu ñëwee fekk hôpital bi gis nga ko gisuñu fi kenn xam nga ñun delloo sax fi mu ne. mu jaaxle loolu ndax xam woon ni moom mii di Mbàkke ak i njabootam que ni hôpital bi doon koo tëj depuis barki démb. fajar lañ koy njaareem ay 4 heures du matin egg si fekk hôpital bi euh, ci dara ñun. actuellement nag dafa fas yéene fanaan fi nga xam ne moom moo di ndakaaru bu fekkee ni sax fas yéene ko woon pour xool nan la mën a contacter médecin bi nga xam ne moom mooy traité soxnaam Sili. alors dañoo obligé ñu fanaan ba bët seet ñu dem ci yeneen hôpital wala ñu médecin bi ñu doon faj ñu jëm koo seet ba xam fu mu ne. jot ngeen ko. wala rek mu xool ci hôpital yi nga xam ne moom moo jege fii Ndakaaru ñu xool nan la ñu mun a faje soxnaam Sile. metti lool parce que lii mu ñu ko xalaat fi mu ne ngi toog di di di di seet ba xam nan lañ war a def dem ci yenn hôpital leneen am na ñu nekk fële nu koy waxee de sax euh, parcelle la xawma hôpital bi ne foofu la nu ñu koy tuddee de dalal jàmm voilà leneen am na ñu yóbbu foofu après ñu seet ba xam en tout cas maa ngi ne di xool ba xam nan la nan laa war a doxalee quoi. bari na woon loolu malade yi nga xam ne dañoo ñëwoon fii ci hôpital Aristide Le Dantec ngir fi ab rendez-vous te yëguñu woon benn yoon ni hôpital bi ne doon ko tëj. Fatou Bintou Konté hôpital ga dañ ko tëj wante toxu gi boo fa demee ba léegi nit ñi ñu nga ca waajtaay ya nekk di toxal bagage yi ouvrier yi ñu ngi noonu kon di ca liggéey juróom fukk ak ñaari bureau la ñu war a toxal ñu di ci liggéey bu baax a baax wante li ciy ñuul rek mooy boo demee ba ca service médecine interne maanaam fi nga xam ne aji tawat ja foofa lañ leen di hospitaliser personnel ba fay liggéey ñoom li leen metti mooy amul benn këyit goo xamante ne jox nañ leen ko buy firndeel ne dañu war a toxu foofee Habib Faye Mohamed Diagne ci biir l'hôpital Le Dantec bi toxal mi mi ngi gën di wéy bagages yi nii lañu ko saamee ci biti ouvrier yi ñoom ña nga cey daaj ak a wekki lii dig buntu yëg palanteer yi waral na ña nga cey gis seeni bopp bu baax donte sax liggéey bi léeg-léeg mu am yenn ci ay jafe-jafe teel lañu commencé nii waaw mais je crois mais je crois bien que ne affaire moom na jaar yoon quoi porte bi benn waaw benn parce que affaire dafa bëri si biir am na ay porte am na ay fenêtre am na aussi waaw donc pour bañ a toj verre yi yàq affaire yi moo dañuy def ndànk-ndànk quoi dëkk par par kii quoi par équipe waaw dëkk liggéey liggéey technique quoi instant bi ñu ngi si 17 personnes léegi nag dañoo def par 2 2 bi xanaa lu fil bi jógee si kaw foofu lañ mën xool nu mu dañee nii quoi moo tax doom dañoo coupé courant bi ba pare. ñoom dañ leen a jël ngir ñu war a wekk lu toll ci juróom fukk ak ñaar ci ay bureau yoo xamante ni bagages yi ñi nga fa. waaw instant bi bâtiment yi bëri na quoi 52 bâtiment la. dañuy demoon de ordre pièce bu demoon te pièce bi traitement bi ba mu jeex ñëw demoon benn pièce jàppee ko noonu ba keroog mu jeex quoi. yooyu ay démontable la rek ay vis la ay vis yu ñu seere yooyu ñëw rek démonté daanaka métti. waaw mais risque la mais liggéey boo gis tamit risque la waaw liggéey boo gis risque la daanaka liggéey moo ko laaj rek. waaye la ci ëllëgub xel moo di fii ci biir centre bi moom mi mer la def bagaasam yi ma ngi koy yëpp ca otoom gi fas yéene ko yóbbu ca këram li ko waral bokk na ci xamul sax fan la war a liggéeyee ëllëg ndax ci réseaux sociaux yi la déggee ne sax dañ leen di tuxal. ñu ngi gis ay not yoo xamante ne ni la population ñook ñoom ñoo ci yem on a au niveau des réseaux sociaux que depuis la 4 août lañ demandé que il faudrait qu'on déguerpisse alors que ñun c'est le 12. ay le 11 la ñu ne ni que ni war nañu def ëpp na 10 donc boobu ba léegi ñoo ngi nii fu mu nekk nii suñu yenn bagage suñ ko jëlul dañuy détruire fii donc dinañ ko ñàkk te pour ñu génne bagage il a fallu ko ñu am kii ñu def demande ñu def kii am bon de sortie soo ko amul doo génne bagage biir l'hôpital bi gis fi nit jamono ji yombut bu weesoo ña nga xamante nit ñoo fay liggéey di jël bagages yi di yóbbu feneen di yëpp itam ci ndaamaar yi ouvrier yi ñoo ñu fi gën a fës waaye la ëllëbub xel ca ña nga xamante nit ñoom ñoo fi nekkoon mooy ñi nga xamante nit ay personnel non qualifié lañ seen ëllëg lu mu nar a doon Habib Faye gis fa nit yombul jamono ji wante Guy Marius Sagna moom nee na li ko ci soxal moom mooy jafe-jafe yi nga xamante ne aji tawat ji ñu ko dund naka noonu itam ña fay liggéey ba tax na ci loolu mu dëgmal ab doxu ñaxtu gaawu bii di ñëw la ko jàpp mu fas yéene cee ànd ak képp ku doon liggéey foofee ca hôpital Aristide Le Dantec naka noonu aji tawat ji ak ñi nga xam ne ñoo leen di gunge ñu teewlu ay kàddoom. dañoo fas yéene bu soobee yàlla samedi bii di ñëw. am doxu ñaxtu buy jóge place de l'obélisque jëm RTS bu nar tàmbalee 10 jëm tisbaar doxu ñaxtu boo xam ne li ko tax a jóg mooy wane suñu métit ci lu ñu bëgg a teg lu ñu commencé teg ñi feebar da nekk hôpital Aristide la Dantec li ñu commencé teg liggéeykatu hôpital Aristide la Dantec ñuy wane suñu solidarité suñu ànd ak ñëpp ñi feebar te nekkoon hôpital Aristide la Dantec ñëpp ñuy liggéey hôpital Aristide la Dantec ndaxte ñoom tey jii nii am na ay indemnité ak ay motivation yoo xam ne hôpital Aristide Le Dantec moo leen ko doon jox ngook mu nekkoon Guy Marius Sagna di député bu yees bu ñu tabb ci quatorzième législature gi beneen député goo xamante ne tabb nañ ko mu di Pape Djibril Fall nekkoon tête de national nationale coalition des serviteurs MPR moom Pape Djibril Fall fësal ay kàddu tey jii xamle ne moom mu ngi dëggal bokkam ci kujjeeg politique gi leneen loo xamante ne nii yëkki na ko mu ne quatorzième législature bi bu ñu ko installé ba noppi dina am ay projet de loi yoo xamante ne dinañ ko fa jëmal ngir napp gi wàllu agriculture naka noonu itam wàllu suuf leneen lu soxal actualité bi jëm ci wàllu hôpital Aristide daan teg moom Pape Djibril Fall lam ca xamle moom mooy tuxal gi naka noonu itam ñetti hectares yi ñu bëgg a jox ay doxandéem nee na loole yëpp dafa tey xel te faaw ñu indi ci ay leeral baaskanu askanu xam naka la yëf yi demee dinañu si dellu si ci suñu yeneen jotaayu xibaar kawteef waxoon naa leen ko ci ndorteelu xibaar yi ca université Assane Seck bu Ziguinchor ab takk der maanaam ab militaire boo xamante ne dafa civilu moom lañ fa teg loxo mu doon jaay yamba ca daara ju kawe jooju lu ni mel nag kilifa ya rawatina waa SAES e di ko naqarlu bu baax a baax Baboucar Diop nekk ki yore ki yore kàddub SAES e foofee ca université Assane Seck bu Ziguinchor ay kaddoom Lamine Ba lamin Mandian ñoo ko taataan. xew démb ñun ñëpp a ko gisandoo te defe naa yëglu na loolu tamit daa nekk loo xam ne ba mu kiiyee euh, militaire bi nga xam ne civil la dugg si na ñoom jàpp nañ ko mooy civil yi. bi loolu amee tamit am na suñu collègue boo xam ne euh, woo nañ ko mu ñëw teeweek euh, si loolu la lépp xewee ba li si am am ñu koy naqarlu ñun fii nga xam ne ñu ngi waa ñun waa université particulièrement ñun waa SAES waa euh, loolu dañuy dellu si waat rek di naan euh, comme ni nga ko waxee euh, université xam nañ ne fii pour joxe xam-xam la xam nañ ne fii pour taatan xam la xam nañ ne fii aussi pour jàngale nit ña former leen teg leen si yoon boo xam ne ku fi génn nañ la naw si li nga xam ne def nañ si sa xel moo tax ñu jàpp na loolu euh, lu ñuy naqarlu la te loolu warta am ci benn université fii ci Sénégal donc euh, dañoo dañoo gëm ne loolu xëy na euh, njuumte la boo xam ne jóge na ci kenn ci ñi nga xam ne jàpp nañ ne daa am fuñ ñu bokk mu nekk militaire bu bu civilu donc euh, amul benn kii boo xam ne war na mun a dugg si université yi bay def def yooyu ndax euh, université moom euh, ku ko dégg xam ne fu ñuy xeltoo la fu ñu jàngalee la ak fu ñuy defaree nit tabax ko si xel mais tabax ko aussi si ni mu war a ñoŋee si wàllu liggéey. gannaaw Ziguinchor diwaanu ngaay Mekhe la ñu jëm ak li ko wër foofee seetlu gi moom mooy jamono ji daanaka garab bëree tufa te naka noonu itam wàll ndox ak wàllu suuf day jur jafe-jafe yu bëri foofee ca li ko wër ba tax na nag ay doomu Ngaye yoo xamante ne dañoo nekk ci ab association ëmb ay jigéen ak ay góor ñoom nag ne neen dañuy takku ngir aar seen dëkkuwaay bu baax a baax naka noonu defaraat bu baax a baax gàncax gi dooleel itam mbay mi foofee ca diwaanu Ngaye ak li ko wër Cheikh Anta fii ci mont am paj ak wér-gu-yaram sooxe fi lool askan wi de dañuy toltolaan ngir mën a dem faju ji daanaka poste de sant yi dañoo néew doole maire dëkk bi profito ci fête ji ginnaaw directeur cabinet bu ministre de la santé dikkoon fii muy yuppil ko jafe-jafe yi nga xamante ne Morolan am nañ ko ci wàllu wér-gu-yaram ngir mu mën koo àggee. di jéggalu ci élément boobu du ñàkk dinañ ci dellu waat ci suy yeneen jotaayu xibaar ñu dem ba Bambilor foofee nag Ageroute mu nga tàmbali ñoo nga laat euh, yoon bi nga xamante ne moom moo jëm ca booru marché ba mu nekk ab yoon goo xamante ne nawet bu jotee day faral di indi ay jafe-jafe rak rawatina ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor seen i daamaar wante nag faw ñu taaxirlu ndaxte liggéey googee yembagul des na tuuti. bi ñu teewlu ci ki nga xamante ne moom mooy Assane béy nekk adjoint maire ba foofee ca diwaanu Bambilor ay kàddoom abdu Diouf Diagne Ahmadou Bamba Samb ñoom ñoo ko taataan. yàgg ça fait des années yoo xamante nii chaque hivernage dañuy af confronté wu à ce même problème mooy lan fii day dagg parce que yoonu ndox la léegi chaque nawet dañ daan jël ay coquillages ak ay grava di ko fi def. mais dañ daan constater ni problème bi day persister à chaque fois ndox bu ñëwee da koy yàq kenn du mën a jàll. moo tax ren jii maire demoon saisir Ageroute pour que ñu ñëw defar yoon bi une bonne fois nga xam bu paree moom kenn dootu ko waxati mën nañ toog ay décennies ay décennies te problème bi dootu fi am. moo tax nag looloo waral day gis ngeen tali bi ni mu xate kenn mënul dem kenn mënul dikk parce que tamit dañu ni kuy defar omelette il faut nga toj ay nen. voilà metti na nag parce dañuy bëgg a dem duñ mën a dem. ils perdent ils mettent beaucoup de temps pour traverser ce tronçon voilà mais incha allahu rabbi bu travaux yi paree moom bon dinañ toog lu yàgg yàgg loo xamante ni problème bi dootu fi am. voilà ñu ngi leen di ñaan di muñ di leen wax ni li si des bëreetul di leen massawu parce que tamit lii metti na mais mettit bi tamit ñu ngi koy dundandoo ak ñoom. tàggat yaram coupe du monde Qatar 2022 ñaari weer képp moom moo ci des wante seetlu gi ci suñu gaynde yi mooy jamono ji boo demee ci seen club ya ca Europe daanaka ñu ci bëri duñu football amuñu temps de jeu ca banc ba la ñuy toog wala sax duñu bokk ci feuille de match bi lu ni mel nag mën a indi ay gàllankoor ci équipe bu Aliou Cissé bi wante saalif jàlloo xam-xamam màcc ci wàllu tàggat yaram moom li mu jàpp mooy loolee li ko waral du lenn lu dul joueur yooyu ñenn ñi ay mag lañ wala sax dañoo wonewul jamono ji loo xam ne mooy wóolu leen ba tabb leen ci biir terrain bi Cheikh Sadibou Diarra. bëri nañ ay internationaux sénégalais yu amul temps de jeu seen club ndorteelu saison bi ba léegi. ñaari weer rek des laata coupe du monde Qatar 2022 bi di door ba tax na ñuy laaj ndax am yi defuñu ko ci tayeef. depuis 2014 FIFA léegi day fay. ay équipe yoo xam ne seen joueurs yi ñu ngi dañ leen sélectionné si coupe du monde donc léegi club yi nekk si adduna bi yëpp suñu sañoon seen joueur day dem coupe du monde non non seulement daf leen defal publicité mais daf leen di am dil bu bëri yaa may dégg donc benn club benn club du du du du bañ jël joueur parce que day dem coupe du monde wala day complot c'est parce que peut-être joueur joueur bi intéressé euh, intéressé wu ko wala joueur bi bon euh, dugul ci plan plan de travail am. ñàkk Aliou Cissé xam loolu ba commencé di dugal yeneen joueur di yaatal groupe bi. gisoon nañu Pape géey da doon gën a dugg si mu am ay changement si milieu terrain bi tam naam il faut mu am changement il est vrai que Idrissa na géey ak Cheikh Kouyaté dañ leen soxla bi léegi. niki Boulaye Dia bi ñu abal Salernitana ca Italie. naaw football ñu wax ci beneen xeetu tàggat yaram mu di alpinisme maanaam yéeg gi ñeel yéeg yu ni xeetoo amee Tunkara moom doomu Sénégal la euh, tàggat yaram bu ni mel lay def fanweeri at ak benn ay atam ci la toll moom nag yéeg na montagne bi nga xamante ne moom moo gën a kawe ci Europe de l'Ouest ñu duppee ko Mont Blanc euh, kawewaay bi war a jege sax juróomi kilomètre moom euh, amee Tunkara kon jamono ji mu ngi fii nii ci Sénégal. daal di fi vacances suñu naataango dajeek moom mu dellu si ci jaloore joojee nga xam ne moom def na ko Aminata Mbaare saw Mar Diagne ci ordinateur bi mu sëgg Mouhamed Tunkara di xoolaat image yi nga xam ni jëlee woon na ko ca ba muy yéeg montagne bii di Mont Blanc montagne Mont Blanc nag boo ko déggee mooy montagne bi gën a kawe bu nekk fële ca France te gën a kawe ci Europe de l'Ouest. liñ ma liñ ma xamee temps yi mooy alpinisme alpinisme mooy euh, sport bi ngay yéegee ay montagnes voilà donc euh, réalisation bi ma def temps yi mooy euh, yéeg Mont Blanc. mooy montagne bi gën a mag ci Europe euh, de l'Ouest. yi nag di ab aventure boo xam ni jot na koo def waaye aventure boobu nag doonoon aventure bu risqué. ba pare euh, ascension bi dama commencé euh, grimper de 7 heures du matin ba 22 heures maa ngi ci montagne yi de 7 heures du matin ba 22 heures et imaginel nga nekk ci benn situation bu compliqué boo xam ne xamoon nan ngay yéegee nan ngay wàccee. nga bloqué foofu noonu pendant 45 minutes ak sa coono euh, lekkoo naanoo foofu noonu da ngay tare say saar rek nga nga ne waaw dee su ñëwee sax dalay may day mel ni lay libéré parce que da ngay sonn si sa xel dangay sonn si sa yaram. tey jii mu toll ci fanweer ak benn at moom nag bokk na ci sénégalais yu ràññeeku ndaxte montagne bi nga xam ni jot na monte ba àgg fa ñu bëri ñemewuñ ko woon def ci période bi mu koy def. Euh, ba ma commencé di yéeg gisoon naa li tax ñoom bëgguñu dem parce que am na benn euh, zone bi ñuy wax couloir de la mort couloir du goûter foofu la nit nit yu bëri di deewee parce que dafa am ay xeer yu bëri yu wadd euh, zone boobu noonu euh, li ma fay romb yëpp maa ngi doon gis xeer yi di wadd xeer yi di wadd xeer yi di wadd mais alhamdulilah dara laalu ma ma yéeg ba ci kaw des fois damay glisser parce que neige bi baaxul même su fekkoon ni que yoroon naa ay crampons mais may glissé mais yàlla def ci xéewal euh, donc euh, ak altitude parce que altitude bi day tax foofu du am oxygène bu baax donc yow euh, da ngay gën a sonn da ngay gën a jël temps pour def yenn affaires yi ba pare tu peux faire de mauvais choix ndax sa xel doo doon ànd ak sa xel torop altitude ñàkk oxygène mooy tax yow voilà tu tu faire de mauvais choix léegi ba ma eggee ba ba ci kaw. ma war a wàcc euh, foofu nag la problème bi nag nekkoon parce que dama nekkoon si situation yoo xam ne nekk ci ay pente yu yu yu yoo xam ne du xam nan laa koy wàccee nan laa koy yéegee. kii nii di Mohamed Tunkara nag Prytanée militaire la jaar ba amee bakkam fii ci Sénégal gannaaw bi mu demee bitim réew ci foofule la tàmbalee sport ci mel ni alpinisme. Euh, mais suma ma xalaatee euh, sama mbokk yi xalaat ñi may xaar kër ga. Euh, damay naan que mënuma abandonné donc ci la ci la yàlla di indi xewal rek ma xalaat benn technique ma def ko mu jàll après voilà donc euh, wàcc bi yëpp noonu la demee woon ay situation yu compliquées yu ma waroon gérer war a jël ay décision yoo xam ne euh, ça doit me sauver la vie ba finalement ma wàcc si jàmm tey jile mu ñëw vacances fii ci Sénégal Mouhamed Tounkara di ñu wax ni am na yeneen i objectif yu mu bëgg atteindre bokk na ci yëg lii di Kilimanjaro di montagne bi gën a kawe ci Afrique mu ngook Mohamed Tunkara lay wuyoo di alpiniste doomu Sénégal di ko jaajëfal ci jaloore jooje nga xam ne def na ko Pierre da Silva suñu réalisateur moom fitam xalaatul sax yéeg fu ni mel mbokk yee xarit yi ñuy seetaan fii la ñuy yem yéen ci xabaaru marax yi di leen jaajëfal seen teewlu 20h yeneen xibaar ci nasaraan ak Chérif Diop jërë ngeen jëf.